asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp man maa ngi tudd Modou Fall nekk président wu producteurs yi ne ci département de Tivaouane en même nekk fournisseur de semence maa ngi leen di nuyu di leen dalal waaw jërëjëf euh, situation nawet bi moom li may njëkkee mooy ñu ànd ñun ñëpp sant yàlla bu baax a baax ci nawet bi ci ni mu tawee wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla bu baax a baax Euh, loolu nag li muy tekki mooy situation bi mooy fi ñu toll nii mooy alhamdulilah nawet bi euh, presque egg na fa mu jëm mooy yàlla def na ci jàmm ak salaam que li nga xam ni mooy dugub moom pare na ñor na macha allah am na ñoo xam ne si tey tey ci mardi bi commencé nañ ko benn ci man kon loolu fu la sant yàlla mën a tàmbalee li ci des mooy. Euh, gerte gi gerte gi ñëpp jàpp nañ ni fii ba le 10 euh, fii ci zone 55 bii nga xam ni ñun ñoo ngi ci département de Tivaouane jàpp nañ ni gerte gi dana ñor xom fi mu nekk ni tàmbali naa ñor loolu nag li muy firi mooy ñu ngi sant yàlla bu baax ci foofu mu toll li ñu gisit ci àll bi mooy baykat yi def nañ seen warugar mooy wuti nañ jiw bay nañ ko bay nañ mbay mu baax parce que àll bi ku gis tool yi xam ni nit ñi liggéey nañu ndax liggéey ka boo ko gisee rek da nga xam mooy foo romb tool yi set na wecc kon ñu ngi yaakaar nag wax dëgg yàlla nawet bu mucc ayib incha allah. waaw département bi buñ koy xayma c'est plus de cent tonnes de semence euh, gerte boo xam ni jiw nañ ko fi ren ci loo xam ni moom la fi nguur gi indi parce ngeen xam ni jiwu nguur gi day ñëw pour jàppale producteur bi kon producteur boobu am na lu mu amal boppam mooy lu ñu mën a xam mooy nguur gi moom andi na fi mille plus de mille deux cent tonnes kon mun nañ jàpp ni baykat bi amaloon na boppam lu ëpp loolu kon comme nguur gi dafay ñëw rek pour accompagner nañu xam ni département bi wax dëgg yàlla ñoo ngi fiy séentu euh, récolte bu am solo ndax jiw bi macha allah nit ñi amoon nañ ko ca def nañ ko ci suuf ca liggéey nañ ko. kon daal lu mu bëgg wax wax ci foofu daal mooy nawet bi moom wax dëgg amul dara luñ ci jàmbat xanaa sant yàlla bu baax. tàmbali nañu parce que boo gisee ñun durant nawet bi dañuy ànd ak ay techniciens ñuy xool tool yi di ànd ak ñun di liggéey bu ñu demee ba agsi fii léegi tey dañuy commencé def euh, rendement yi xool rendement yi nan lay demee ren. déjà commencé nañ ci am ay xayma rendement yi euh, euh, difficileul pour ñu xam ko man en tant que producteur bu ma amul benn jumtuwaay sax mun naa def loo xam ne dana jege rendement yi mooy que il suffit nga am benn carré bu un mètre rek mun nga daal di xam sa hectare bi ñaata nga fi am ndax boo ko dëppee fenn buddi loolu dëppaat ko feneen dëppaat ko feneen boo amee cinq essais rek boo jëlee moyenne bi di nga daal di xam sa rendement ren fan lay toll baykat yi ñoom loolu daanaka déjà dinañ ko def mais lu ma la mën a wax daal ñun côté Tivaouane bii ñu nekk ñi ngi xayma rendement bi une tonne à une tonne deux cent à l'hectare donc l'année dernière ñu ngi doon wax ay sept cent huit cent kilos à l'hectare mais cette année si vraiment ñoo ngi yaakaar une tonne ba une tonne deux cent donc loolu wax dëgg yàlla ay jéego la yoo xam ni nawetu ren bi wax dëgg baaxaay bi yàgg na foofu kon nag euh, du ñu man lu dul sant yàlla bu baax ci loolu euh, di dolli it bu wax ni yaakaar daal am na euh, yëf yi nag ay étape la joxe nañ jiwu bu baax baykat yi góor góorgóorlu nañ ji nañ bay nañ ñi ngi yaakaar récolte bu am solo la ca war a topp nag mooy fexe ba am une bonne campagne de commercialisation donc loolu mooy li mooy la ca war a topp. waaw campagne bu jaar yoon euh, acte yi ñu war a poser euh, du benn parce que comme ni ma koy waxee campagne day yomb trop ñu tëb rek ni diw moo yàq campagne bi parce que campagne bi dafa am ay acteurs yoo xam ne ñoo ko seq mooy baykat bi mooy opérateur bi nga xam ne mooy collecteur bi. mooy industriels yi usines yi xam ni ñoom ñooy jënd mooy banque yi nga xam ni ñooy financer campagne bi ñoo ñëpp kenn ku ci nekk dafa am lu la war ci liggéey boobu loo war a taxawee état bi nga xam nag mooy organisateur bi ñëw nag moom it ci la bokk moom it dafa war am taxawaay en tant que organisateur parce que état jëndul jaayul waaye nag mooy organiser gars yi en quelque sorte mooy arbitre bi donc ñooñu ñëpp kenn ku nekk war naa pare pour dem ci campagne bi kenn ku nekk ci ñoom soo parewul pour dem ci campagne bi boo demee du du dikk dara loolu moo tax ma ne la ñii ñëpp kenn ku ci nekk dafa am lu ko war baykat bi moom bay mu ñor mu récolter di xaar jëndkat bi yaakaar naa ni loolu baykat bi moom ma nga ca waaram jëndkat bi it li ko war mooy mu ñëw jënd ci baykat bi kontaan bañ koo defal boo MP bañ koo leb lu dul dafay indi xaalis ñu peese ñu fay teg teg gi teg ci loolu bu amee jàmm ni ñooy waaye léeg-léeg nag teg gi teg ci boobu indi jafe-jafe du mën a am li koy indi mooy léeg-léeg man en tant que opérateur collecteur suma banque bi lebalee supposons cent million ma dem seddale ko sama cinq points de collecte ku ne ma jox la vingt millions et ñu jënd ko ma daal koy far charge yóbbu ko ci usine ba usine ba téye xaalis bi mais du ma dellu ci àll ba parce que du ma mën a jëndaat il faut usine bi xaalis boobu man ma mën a jëlaat xaalis boobu dellu ci àll ba mais su fekkee nag usine yi yoruñu xaalis ci seen ay caisse nga xam ni su fournisseurs yi opérateurs yi indee gerte gi duñ leen fay ci saa si loolu mooy waral campagne bu yàqu loolu mooy waral campagne boo xam ni day am ay jafe-jafe yu cay am loolu benn benn partie la beneen partie bi ci des euh, ñun ci ñun opérateurs yi mooy yow nga ñëw jënd cinq jël cinq points de collect yoo xam ne yow yaa fa jënd ca yow parewoo mooy amoo benn doo dërëm boo war yóbbu ci point de collecte yooyu bu boobaa loolu bu boobaa loolu day poser problème mooy que war nañ seet critère yi ñuy agréer nit ñi pour que ñoom ñu mën a dem ci terrain bi remplir seen mission pleinement su fekkee ni loolu amul toujours rëq-rëq dafa mën a am moo tax mbir mi du ci kenn du ci ñaar ci ñépp la euh, ci mujjantal bi banque bi yi nga xam ni ñoom daanaka ñooy gàddu campagne bi ñoom it ñu jouer le jeu teel a libéré xaalis bi teel a joxe xaalis bi ci loolu nag ñu ngi ciy defal mention spéciale CNCA parce que CNCA gis nañ ne daanaka année yi bur woon ñoom lambay ñaaw mooy bari na banque yoo xam ne si wax dëgg yàlla taxul ñu demee noonu ci campagne bi mais CNCA ku ne xam na ni wax dëgg yàlla mu ngi def ay jéego yu am solo ci campagne commercialisation bi bu ma résumé rek mooy dama lay wax ni la acteurs yooyu yëpp kenn ci nekk ku ne am na rôle am boo xam ne daf ko war a remplir léeg-léeg am koo xam ni ñàkk remplir loram moo tax ka ca des mënul remplir loram état bi am na lu ko war mooy ku dee xam na ni fournisseurs yi ñu doon ñun ñoo ko joxeel semence yi nga xam ni moom la doon joxe ci nawet bi ci xaalis boobu yëpp ci banques yi lañ ko jëlee. donc su ñu bëggee commencer commercialisation bi ca moom it nekkul en mesure pour fay xaalis boobu wala fay ca lu am solo ba ñu mën a démarrer campagne bi léeg-léegi loolu dina ci indi rëq-rëq donc pour campagne commercialisation jaar yoon dafa am ñu bari ñu ko séq ñoo xam ni kenn ku ne dafa war a def la mu war a def loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk te jàpp naa ni bu ñu toogee def ay waxtaan ak ay réunion ministère de l'agriculture jàpp naa ni balaa ñoo egg ci taxawal campagne bi loolu ñu war a jël lépp ci ay mbir war ko lijjanti buñ ko lijjantee rek door a dugg ci campagne bi jàpp naa ni mën nañu bañ am benn problème waaye suñ ko lijjantiwul nag ah toujours loolu daf nekk rek toujours loolu daf nekk rek mooy il faut que usines yi am xaalis ba ku ñëw ñu mën laa fay il faut que det yi nga xam ne état bi joxeloo na ko euh, euh, opérateurs yi moom tamit ñu fay ko donc loolu du def lu dul defar du def lu dul baaxal campagne bi euh, ca ñoom ñi nga xam ni ñooy nguur gi seen ittee ak seen pexe du dara lu dul campagne bi baax donc ku fab milliards yu day noonu jox ko baykat bi jox leen ko dimbalee leen ko kooku du yàq campagne donc léeg-léeg nag finance mooy nekk loo xam ni dafay ni muy doxee day diis ba nga xam ni pour ñu gaawantu ci loolu day jafe mais nag am nañ yaakaar ni euh, bala ñu caa egg yooyu yëpp danañ ko lijjanti ak jàmm incha allah mais daal loolu lépp daal bu réglé jàppal ni am nañ campagne bu baax su réglé wuti nag campagne bi toujours loolu mooy li koy téye waaw agrément yi xam nga industriel yi mooy euh, usines yi nga xam ni ñoo fi nekk Sénégal tey ñooy sun mooy Sunoyor mooy CAIT hmm, mooy Copéol Novasen mooy ñetti usines yi nga xam ni ak Vao bi nga xam ne daaw la ubbi ay américains ñoo ko moom ñeent usines yooyu ñoo fi agréé lu tax ma ne la critère d'agrément yi toujours ça pose problème mooy kenn ku ne da ngay agréer di dem nit ki ñëw na jël 4 points de collecte wala ñetti point de collecte ñu agréé ko ci xamuñu ba xam ndax kooku war naa mën a remplir mission ba mu war a def ca ñett wala ñaari point de collecte yooyu loolu léeg-léeg ça pose problème moo tax ma ni la agrément yi critères yi toujours war nañ ko di xool di ko xoolaat ba nga xam ni suñu envoyé nit ci benn point du ñu yàqal baykat ba dara duñ ko tardeel ci dara donc loolu mooy li tax ma wax loolu critères yaa ngi militaire yaa ngi fi bu ñu ko tegee rek te respecté ko donc jàpp naa ne am na problème yu bari mën nañ ko résoudre beneen problème beneen situation bi am mooy am na loo xam ne diggante daaw ak ren andi na tuuti euh, woyofal ak yombal ci baykat bi mooy exportation bi nga xam ni étranger yi commencé nañ ñëw di jënd gerte gi fii ci biir réew mi ci wetu usines yi moom it commencé naa defar campagne yi ndax yaakaar naa ni daaw problème bi ñu am ci usines yi ci ñàkkum xaalis ci yeex a fay su fekkoon ni exportation bi euh, ubbiwuñ ko doon nañ am jafe-jafe mais ubbi bi ñu ubbi ko exportation bi moo tax jafe-jafe yu ci bari amul exportation bi nag benn inconvénient lañ ci gis mooy il faut ñu gën koo organiser ndax usines yi fi nekk di liggéey dafa am ay critères yu ñu teg ci seen kaw ndax dañuy xam fi ñu nekk ñu yebal fa contrôle économique jox leen ay normes yoo xam ne ci lañuy ñuy liggéeyee kenn sañu koo jéggi waaw ki ñëw bees ban lan moo tegu ci kawam dañ ko war a teg ci kawam moom it yu mel noonu teg ko ni ko yow yaa ngi Pout wala yaa ngi Thiès ci barab sàngam contrôle économique nga fa producteurs yi nañ ñëw décharger seen gerte ci critères yii donc loolu moo des. suñu leen bàyyee nag ñu nekk di sillonné ci biir marché yi ak ci biir réew mi di jëndee lu leen neexe di nga dinañ dem ba ñoom saa bu ñu bëggee daaneel prix bi dinañ ko daaneel loolu tax dañu war teg ay critères yu wóor ñu nekk fu leer euh, agent contrôle économique yi nekk fa ñu jënd ci loo xam ni ñëpp nañ mën a contrôler xam ni lii la ñuy def wala laa la ñuy def donc loolu daal laa ci gis loo xam ni war nañ ko ci dolli ci lii fi mu nekk nii nii jamono yi ñu toll li nga xam ni mooy suñu taxawaay mooy def suñu ay lettre de crédit yóbbu ko ci suñu ay banque ay suñu demande de crédit parce que fi mu nekk nii ci lañu ñu war a tëral naka la ñuy financer ñun campagne bi ci période bi mooy man xam naa suma capacité de collecte ñaata la ñaata laa war a soxla pour dem campagne loolu nag nëga ni war nañ commencé def suñuy demande de crédit yóbbu ko ci suñu ay banque commencer ko suivre pour que bu ñu nee rek tey jii la campagne bi di door ñu mën a ubbi tey jënd tey comme ni ñu koy waxee ci école bi ubbi tey jàng tey ñun tamit ñu mën a ubbi tey jënd tey loolu nag li ñu ko mën a may mooy ñu teel a yóbbu suñu ay demande mais demande yooyu balaa ko banque be mën a traité dañuy fixer prix gerte gi pour wax ni prix temps la ñuy jënd gerte xam nga banque bi mënul traité demande Modou Fall ci xamul ban prix la ñuy jënd gerte gi man su ma doon bind tey sur la base de prix de l'année dernière laa ci mën a def wax ni man de soxla naa cinq cent million pour collecter temps de milliers de tonnes sur la base du prix de temps prix boobu damay wax rek ni su fekkee ni prix bi changé wul donc banque bi nag pour mu traité dossier bi wax ci lu leer donc foog prix bi taxaw donc loolu mooy li nga xam ni mu ngi ci mais yaakaar naa ni sur ça moom ci mbirum prix bi xëy na dootu yàgg ñu mën ko taxawal. de li may wax fii ci département de Tivaouane taw bi même bu yamoon fii la plupart ci liñ fi bay. moo xam dugub la moo xam ñebbe la moo xam gerte la dana ñor ndax fii variété bi ñu fiy bay quatre-vingts à quatre-vingt-dix jours lay am hmm? te ñun ñu ngi commencé ji le onze juillet le onze octobre dinañ am quatre-vingt-dix jours kon ñun pratiquement fii ak le onze baax bii mën na ko yeggale foofu rek laa ko teg xëy na keneen mun naa wax ni man damaa yéex a ji ba lii wala laa waaye la plupart su may wax ak quatre vingt quatre vingt dix pour cent sûr que li ñu fi bay euh, wax dëgg yàlla am nañ yaakaar bu wér ni euh, yàlla mën na ko àggal ak jàmm ak salaam ñu am ca nag lañ doon wut loolu moom mën nañ koo sant yàlla bu baax baax cay ñaan nag ñun ñu muurloo ko. xam ni e, ñun sabablu lañ am muy doomu aadama nguur gi la man mooy joxe jiw ak engrais baykat bi la ko war mooy bay defar toolam loolu yëpp yàlla dogal na am na yàlla mi nga xam ne nag dara tawu ko moom it wàcce na ndox mu doy sëkk nawet bi macha allah li ma la wax léegi rek yàlla na nu yàlla dimbali ba acteur yëpp kenn ku nekk mën a remplir rôle am ba ñu mën a def campagne commercialisation bu tegu ci yoon. parce que kenn rek mënul dara ñëpp ñooy àndandoo acteurs yëpp kenn ku ne def lam war a def campagne door a taxaw acteurs yi nag limal naa la ko léegi baykat bi la opérateur bi usines yi banque yi état du Sénégal bi nga xam ne mooy organiser donc loolu mooy li nga xam ni su lëkkaloo ñooñu euh, def ay waxtaan balaa campagne bi def li ñu war a def yaakaar naa ni war nañ mën a génn ci campagne commercialisation bi ca ñi ngi séentu it ñu ubbiwaat euh, exportation bi comme ni ñu ko defoon daaw ba ñoom tamit bu sooxee naree am ñu mën a jël lu bari ci production bi ba baykat bi du sonn xanaa di di leen nuyuwaat di nuyu ñëpp di gërëm techniciens yi nga xam ni ñoom lañ àndaloon ci àll bi ndax nawet bi it ñun baykat yi dañu ànd ak techniciens yi SDDR bi DRDR bi ministère de l' agriculture bi nga xam ni moo organisation bi ci ci ci ci ci état bi di gërëm it président de la république ci li mu dugal ci àll bi gis nañ ko jiwu beeg engrais beeg matériel agricole beek lépp daal mbégte ci baykat bi kon nag ah ñun ñi nga xam ne daal ñoo féetewoo àll bi daal ñoo ngi sant di gërëm tey ñaan mu dolli bu beneen Thank you.